pàkk bii nga xam ne moo sañcoon pàkk bi da wax ne ku aajoom nag te faju doo fi teg sa tànk muy pàkk bii pàkk la boo xam ne mën nañ ne mu Tuubaa Ndooram ñoo yem Sëriñ Cheikh Ndiaye moom Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke ilimaani ilimaan yi moo ko sancoon sëriñ Cheikh nag kenn la ci koo koo xam ne mos nañoo ànd ak moom ñun waa Passoir dem ci sëriñ Saalihu Mbàkke yàlla yàlla yokk leeram sëriñ Saalihu wax ñu ne sëñ Cheikh ñu de day seen muur yéen waa Kawlax waaye ñun waa Tuubaa xam nañ ko te ñoo leen ko gën a bëgg kon xéewal la boo xam ne suñ borom moo ko jagleel waa Kaolack rawatina Touba Passoire gi di la xamal yow sëriñ Mbàkke Madina Mbuur pàkk bii nga toog muy néegub yàlla bi Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke ilimaanu ilimaan yi moo teg xeer bi jumaay murit jii moo fi njëkk ci jumaay murit ci Kawlax jumaay murit jii moo fi njëkk ci jumaay murit ci Kawlax loolu yëpp ñu ngi koy xamal di la ne Serigne Cheikh Ndiaye mi nga xam ne mooy waajur sëñ Omar Ndiaye ak Serigne Mam Moor ak sëñ Modou Ndiaye mii nga fekk si kenn la woon koo xam ne ñu ca ëpp bañ ko ñàkkee lañ koy door a xam buur yàlla la goo xam ne daal làqatu woon ne fii lu ko waay mos a jox buggut këram gii kër gi sax ci ginnaawam la mel nii jumaa ji rek ko ñoroon lu ko waay mos jox ci jumaa ji la ko jëf di xamal ne kër gii kër Sëriñ Tuubaa sëtut Maam Moor Jaara borom Saam muy soxna Muslim Mbàkke ñu ngi ci kër gii di soxna sëñ Umar sëtut Sëriñ Mbàkke Buso muy soxna moom ñu Buso ñu ngi ci kër gii di soxna sëñ Umar caatum Sëriñ Musaa Ka ñu ngi ci kër gii muy soxna Jóoba Ka di soxna sëñ Umar mii nga toogal te lu ay million la yor ñi ko may loolu ku ne ko xam mooy sëñ Tuubaa ñu téye rek ak ndigalu bàyyam bi ko fi teg moo ko may loolu waaye nit yor nay million bëgg loolu sax te mënu ko am loolu it ñu ngi koy leeral ndax jaadu na boo ñëwee ci kër gi ñu leeral la kër gi kër gi kër Seexul Xadiim buñ ko waxee it yemut foofu ku sant Mbàkke te ñëw ci dëkk bi rawatina njabootu Cheikh Abdou Khadir ku ci ñëw fii ngay fanaan sëñ Mamoun Bousso imam bu grande mosquée bu Touba saa buy dem Porokhane fii lay wàcc fii lay jiite door a dem loolu it ñu ngi koy leeral kon kër gi kër Cheikhul Khadim la bi ci nag mooy fii nga ñëw say bokk taalibe rek def fekk ñu rafetlu dëkk gi nga dëkk fii. du nuyu waa Passoir yépp nag. tey jii nag daanaka li ma bëggoon a wax sëñ kii sëñ Balla Niang daf maa waxaale tey tey bés bii moom sama bés ndax li tax tey bés bii sama bés la kenn ku ne xam ne ni ci sëriñ bu mii laay yëngu bëgg ko rek te yàlla tax di ko nooyee ba lépp lu ma ci woon ni rek nga ñëw wuy si ma rawatina nag awma fenn fu dul passoir muy jumaay passoir bii di sëñ Cheikh mii nga xam ne sama càmmeñ la sama lépp la yàllaa ñu boole ñu sëñ Omar Ndiaye ba ma nekkee tuutànk laay dem di jàngi kër nijaayam moom xam na loolu bu baax ak samay mag ñuy àndandoo di jàng kër Baye Bassirou Ba kii kon loolu ànd bu yàgg la ma ñëwaat Passoir fekk si ko fi kon lu mel nii moom su sëriñ bu ñëwee fii ma ne nañ ñëw fii ci jumaa ji ñu def fi li ma ànd koog waa Passoir gi nga xam ne kenn mësuñoo seetaan xam ne li ma bëgg rek loolu lañ bëgg li ñu bëgg lenn la. sëriñ li nga yóotu yal nañ ci jot moom boo ci jotee boobu yal nay sa njiglaay yàlla boo ci réccu dara ndax ku ne xam ne ne ñun Kaolack li ñëpp di sonn ñun waa Passoire ñoo ci gën a sonn ku génn aw nii gis canal bi xam ne ñun sonn nañ ku génn romb fi wuti jaleñ xam ne ñun sonn nañ yow doo lekk doo naan bu timis jotee doo mën a julli sax booy julli da ngay ŋaaw sa gémmiñ ndax yooyu bëri akub salte ku ne xam ne ne loolu ñu di ko dund dafa yàgg tametti kon moo tax ñu war a jàppale sëriñ buum mii xam ne doomi Kaolack la bëgg na waa Kaolack te amul fenn fu dul ñu jàppale ko ba la nga xam ne li ñuy mu jot ci pour mën ñoo saaseel suñu dëkk bii saaseel ñu suñu quartier bii. ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp di jiiteel suñu nuyoo sëriñ Omar Ndiaye mi fi teew di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tànd ak wér di ko ñaanal it njaboot gi yëpp ak mboolem kilifa yi fi teew. waaye di nuyu le président Serigne Mboup ak mboolem délégation bi nga xam ne moom la àndal ñëw fi tey fii ci Passoire leeral nañ ko taarixu barab bi leeral nañ ko barab bi ni nga xam ne noonu la demee xam naa ne bu gisee ma jël kàddu sax dana ne fàllu mi lan lay def fii waaye <laughs> président leeral na ne fii moom bërëb ndax keroog bi ñu tàggatoo rek ci foire bi maanaam damay dellu Touba waaye lii moom moo tax ma toogaat ma dellusiwaat lii moom moo tax ma dellusiwaat pour leeral la ni nga xam ne noonu lañ demee ak barab bi. ndax yàgg nañ seq liggéey waaye tamit am na kóllëre goo xam ne dox na suñu diggante ak sa waajuru jigéen loo xam ne man mi maa ko dox ndax daara ji maa leen njëkk yóbbu kër ga ci poroxaan ñu fay jàng at mu jot d'ailleurs keroog ci jour cérémonie gerte door bi fi yaay mu jaaree jëm poroxaan daf maa woolu ma ñëw mu ne ma mbaa yéen a ngi waaj poroxaan ma ne ko bu baax a baax a baax te ren sax dana gën a yaatu at yi nga xam ne moom moom moo weesu te loolu jëf la goo xam ne jëflante na ko daara ji mu rafet lool ba ci jumaa ji bañ koy door dama ko woo téléphone waxu ko rek mu ne ma loolu mën naa ci njëkk jëf keroog ciment bi mu yónnee ci man la jaar ma yónnee ko ñu indi ko fi wàcce ko fi ba pare ñu jël ko def ko ay image ñu yónnee ko ko pour wane ko sa liggéey ak si na si jumaa ji kon kóllëre googu su amee su diggante ak moom doomu ñëw fii kon yaakaar naa ne yow li ñu leen jëkk a considéré mooy membre daara ji muy membre daara Touba Bagdad kon su fekkente ne membre nga ci ñun suñu membre nag bu amee lu ñu yóotu di ko wut yaakaar naa duñ dem di ko Euh, jéggaani feneen kon dañ koy jàppee suñu biir kon seriñ membre daal daara Touba Bakhdaad nga loolu moom jàppee nañ la ko bés ni ko tey leneen li ciy dolli moom mooy euh, ni ko suñ Balla waxee jumaa ji ñun moom lañu am jumaa ji mooy suñ priorité numéro un mooy suñ priorité numéro deux mooy suñ priorité numéro trois ñun amuñ li ñuy sàkku naan ñëwal defal ñu ko ñu suñ jëm bopp yi néegu bi yàlla bi su su melee ni war a mel lépp luñ bëgg mën nañ ko am ndax bërëbu ñaanukaay yàlla la lépp luñ bëgg mën nañ ko am kon ñu defaral ñu ko waaye loolu it am na lool da ci laaxaal da ci laaxwaale muy lan muy quartier bi nga xam ne moom lañ nekk muy quartier Passoire dafa ne quartier bu xaw a doy waar ci nawet ndax loolu faaw ñu leer laale ko te jumaa ji dafa nekk ci biir quartier bi suñu waxee jumaa ji te fàttewaale loolu mën naa ëllëg mën naa dem ba indi ak gàllankoor ndax quartier buy taa la quartier buy taa bu baax a baax a baax la bokk na ci liñ gën a njëkk a xalaat sax bi ñu ndox kanaal bi la même chose canal dañ ko tëjoon bu njëkk ñun bi ñuy gone canal bi lépp dañ ko fermé woon ay jamono du woon nañ ko fi am na ay projet sax ñu fi doon wax ca jamonoy benn maire boo xam ne jot na fi nekk du ma tudd turam bañ waxoon ne dañ koy fermé waaye ba léegi France daani xëddin kon loolu ñu ngi la koy fàttali nga bàyyiwaale ko xel ci sa programme te xam ne passoire am nañ jafe-jafe mu jëm ci canal bi ak inondation bi nga xam ne saa su ne bi mu fay am li may tënkee samay kàddu ndax kàddu yi du gudd xam nañ seen programme ni mu saturé ndax sëñ Abdoulaye danaa wax ne wax nu mu guddee na ko amee te tànk nu mu gaawee na ko tegee ci yoon euh, li ñu tëjee moom mooy ñu xam bu baax ne bërëb bii sëriñ Omar mii mooy suñu fi kilifa lépp lu wax ñun loolu lañ wax moo fi suñu kilifa lépp lu mu wax loolu lañ wax ci njàng yar tarbiya lañ ko xamee ca na xam ne noonu la waajur wa nekkee woon wutiwul dara fenn bañ ko ba jumaa ji bañ koy door am na ñu bëre bëri ñoo xam ne dañoo ñëw ne ko dem ci politicien naa mu ne déedéet kon yow bu la yàlla dimbalee nga nekk koo xamante ni ni ma koy sànq boole nañ la suñu bopp kon liggéey bi sa liggéey la lépp loo ci jëfandikoo ci yow la tey xam nañ ne jox nañ la suñu bopp lépp ñu fas yéene ko ànd ak sëriñ bi di la ñaanal yàlla li nga xam ne mu nga yóotu te te fas yéene ci ànd ak yow euh, muy muy muy mairie bi yàlla nga ci jot ndax moom mooy li gën ci Kaolack ndax mbir su fekkente dañ koy jox nañ ko jox ka ko mën waaye buñ jox ka ñu neex sëriñ bi su fekkonte ne jege nañu te nekkul ka gën ci Kaolack dañ ko jàppale waaye dafa nekk ka gën ci Kaolack dañ koo xam bu baax a baax xam nañ compétence am xam nañ xam xam am xam nañ ni mu bëggee Kaolack su fekkoon ne boppam rek moom moo ko ñor mënoon na toog Ndakaaru gee mën na góoyóoyu ab liggéeyam lu ne na kaa mais politique ak coono gi ci nekk lañ lay yekk lañ lay wax di la xas lépp nga naan ko encaissé ngir damaa bëgg dëkk bi kon ñun bu fekkee ay gor la góor góorgóorlu ñu jël maire bi joxo ko te bañ a jiital suñuy intérêt bopp loolu ba déggee moo xam ne mooy lan dëkk bi jaaxasoo ku ne day ñëw sa kër jëm laa jox xaalis ak yooyu uh-huh. waaye loolu ak gert la ak ger la nañ ko xam bu baax a baax a baax ay taalibe lañ nañ xam li ñu bëgg moom mooy lan li ñu bëgg moom mooy Kaolack développé Kaolack su développé yoo ndaw ñi dañuy am xëy dëkk bi dañuy jëm kanam mag ñi mag ñi mag ñi danañ am cadre de vie boo xamante ni mën nañu sax se danañ gën gudd fan kon loolu ñu koy fàttaliwaat ñuy jégaluwaat bu baax a baax kàddu yu gudd na wa salaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Omar Ndiaye ñu ngi lay ziar la nuyu di ñaanal sunu kilifa gi sunu maam mi ñu jiitu feeñ euh, Cheikh Ndiaye daal moom mi nga xam ne moo sanc penc mi di am mbégte di fi ñëw euh, Matar ak Baye ji indi ma fi ma ànd ak Alioune Diouf fekk fii sunu yaay Soda Badiane fekk fi tamit Fallou Sylla mi ak suñ maam Balla ñaan euh, fekk fi tamit suñu waajur suñu daam gasama euh, di wax rek ne ak Abdou Diagne bi mu dee wax léegi di wax rek ne passoir ak ndoor ak benn la euh, tey jii bu ñëwee fii fekk mu nekk njabootu sëñ Abdou Khadre comme ni nga ko waxee euh, sama waajur sëñ Mbàkke màddina mooy lépp waaye am na ñaari kër yoo xam ne nii daf ci xuusoon bu baax muy kër sëñ Bachir kër ak sëñ Abdou Khadre ndax ñoom ñaar ñëpp ku ne tudd na leen doom ci waa kër sëñ Touba gannaaw sëñ Mbàkke Madina ñoom ñaar ñëpp tudd na leen doom te noonu tamit la sëñ Cheikh nekkoon xaritam lool li koy firnde rek foir bi sëñ Cheikh Karo bi mu fi jaaree ni day dem Sokone daf ma woo ne ma maa ngi jaar seen dëkk ma ne ko maa ngi fi ma wax ak moom ba mu jaar ci foire bi te xam nga ne sëñ Cheikh bëggul <laughs> waaw bëggul xumeel ndax bi may dugg ci lii sax ànd ci woon waaye def na ma woon dema rek waaye bi mu dikkee ba gis foire beeg yooyu ñaanal na ma keroog ci loolu ñaanal na ma léegi maa ngi doog bi nangu man nag comme ni ngeen ko waxee rek ci li ngeen nekk ci laa nekk doomu daara ak liggéey politique bi dama gis ne daara ak liggéeykat yi ñi ngeen di bëgg dañoo bokkul wala boolewuñ wala ñoom nangu ñoo bokk waaye boycott boobu dañoo am sutura ba bañ a fekk fu tilim ñu ñu bokk ak ñoom waaye fu tilim tamit boo ko bàyyi ña ko tilimal dañ koy gën a tilim dañoo war a ñëw bokk ak ñoom raxas ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne man lam yahtam bi umuri mu'minin falaysa minna ku topp tawul mbirum jullit ñi bokkoo ci ñun mbirum jullit ñi ci rek nga ko mën a jaare soo ci jaaree nag man koo raxas mu set loolu tax ñu dugg ci dugg ci tamit mooy liñ ci bëgg rek mooy setal mooy ñetti es yi ñu wax setal dëkk bi muy set ak assenissement ak aménagé dëkk bi ndax dëkk bi xatul da ngay dikk rek ne dëkk bi xat na waaye xatul dañ ko dañ ko tegalul boo jëlee ay birig tey teg ko fii te tegalewoo ko mën naa am fii dañ ne la fees na te feesul ak defaraat verdure bi garab dafa baax ci nit dafa baax ci tuyaaba la fexe tamit ba dem beeg dikk bi mën a yomb ci biir jóge fi dem feneen ak ci biir ci dëkk bi ah soxla économie bi mooy fexe tamit ba képp kuy liggéey man ci jariñoo rek ci liggéey boo mën a nekk muy jigéen ñi muy xale yi nekk ci jakarta yi muy mag ñi xëy di liggéey ak tamit seeni doom ëllëg fu ñu mën a liggéey ak njàng mi ak sant bi loolu maire bi def ci am rôle boo xam ne nii lu ci population bi soxla rek war na koo mën a def bu ko mënut a def mu dem seeti gouvernement bi wala mu wuti ay partenaires amu ci nit ñee wax naan maire mënul lu mais maire lépp la mën ah lii ngeen fi ngeen ma indi nag recevoir ma fii ci jàkka ji jàkka ji ñu bari dañuy wax naan jàkk kenn du fi wax politique waaye jàkka rek la war a politique bu dee politique ku dëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam politique bi mu daan def yëpp bu daan woote daana nodd ñu ñëw ci jàkka ji waaye daaw leen wax julli seeni mbir la leen daan wax kon jàkka ni mu tudde jumaa jamaa mooy fi ñuy dajale ndax xutbab imaam ci contexte ci contexte bi rek la war a nekk dem na nag tey imaam bu waxee ci contexte bi wax lu neex ñu ne imaam bi naa am ñu ne imaam bi daa politique bu waxee lu lu lu naqare am ñu ne imaam bi daa contre ñaar yooyu rek fi nekk waaye loolu wërta tax ñu bàyyi leen ko xutba bu ci ëpp li ci jiitu mooy loolu ah kon bu ma ñëwee fii nga recevoir ma fi rek dal na xel man nag. kon ni mu ko waxee sama waajur wu jigéen fàllu si la wax ko léegi moom dafa baax lool ci ñun suy def dara fenn duñu ko wax ndax day bañ ñu ne def nañ fa dara def naa fa dara du ngeen fa def dana def dara ba pare seen sax mel ne ku ñu ko waxul bëgg ñu def waaye maa ngi sant yàlla bi ma ñëwee fii fàllu leeral ma ko incha allah ah du ñu ci euh, du ñu ci ëpp duñ ci def incha allah ci sama yëfu bopp. Euh, danaa seet li nga xam ne nii mooy fi ñu toll fu liggéey bu toll lañuy joxe ndax euh, euh, li ñu alxuraan jàng ne waatal maal ala hubbihi jël la tibb joxe fekk fekk fa soxlaa nga defe ko incha allah nañ xool wax ma fi soxlaa waaye nag leneen li ci des mooy dama ne damaa jël engagement te yaakaar naa conseil yi danañ ma ci topp ëllëg mairie bi dana jël jumaa yeeg jàkka yi mu nekk priorité mu man ko mu mën a jariñ askan wi mu mën nekk loo xam ne nii la nga xam ne nii ndax askan wi bu jariñoo rek maire bi gis ci boppam mooy mu nekk barab bu nit ñi di yeesale seen diine ndax inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar julli soo ci demee ndaw ñi daanaka sécurité danga ko am jumaa yeeg jàkka yi barabu waxtaanukaay la boo xam ne nii lépp loo xam ne nii naa bi amoon na ko wala maire bi am ko mu jëm ci njariñu nit ñi walla ñu nit ñi war a dajaloo leen wala communication bu ñu waroon a fay impôt sax bu leeroon ne impôt bi ñëpp ci nit ñi la jamaat imaam mën na ko porter waaw imaam mën na ko ndax Seydina Ababacar jóg na di laaj impôt ba mu jur ab xeex te daf koo def muy jihaad kon tey li ñu dal rek li tax ñu bari nanu ñoo ñi ngi fay sax bu baax ndax 3 milliards yi ñu wax ne maire moom la am lu bari la ci kaw la mën naa def lu bari lu baree bari la mën a def ah kon tey buñ ci àggoon ba di ko ci def ba nit ñi di gis njariñ li yaakaar naa ko wax imaam yi ko wax ñëpp ne leen jóg leen porte lii nit ñi danañ ko def te tubaab yi fi nekkoon dañ ko daan def dañu daan boole kilifay diine yi ci gestion yëf yi ba ñooñu. yu ci bari ñoo leen ko daan réglé ci seen diggante ak lépp lu ma fi wax nag dama nar def ko waaw ah kabura maqtan indallaahi an taqulu maa laa taf'aluun waaw di wax lu ma dul def moom du ma ko def tey jii xëy na ci wàllu tabax daara ah, wala jumaa ba ma koy njëkk a def sëñ Moussa Bassirou di ma ko wax ma def ko ci jumaa Ndorong gi booba sama capital lu tuuti la kon xëy na tey laa ko gën a man waaye xëy na tey la sama euh, fi may xool gën a yaatu du Kaolack rek di koy soxla kookeeg jigéen soor képp dañ koy soxla waaye li nga xam ne nii moom fas yéene naa ko mooy nee ma tàmbalee école bu fële école alaaji Ablaye nga xam ni tamit li ma doon wax rek ñoo ñëw wax ma ko incha allah noonu laa fas yéenee tam defar yépp yaakaar naa daal ci sama màndaa bi may wut li ma man ci sama alalu bopp danaa ko gën a yokk waaye tamit maire bi objectif am dana orienté wu ci lu bari ci daara yi ak jàngukaay yi ndax njariñam la bu baax a baax kon nag incha allah ah sëñ Omar maa ngi sant di gërëm. di wax ne euh, lii ngeen ma wax fii du lu jafe ndax sama njariñ la sama njariñ la ci wa ma anfaqtum min shay'in fa yukhlifuhu khayrun wa foqar ci sax ne ma def ci dañ ko waroon def insha allah danaa waaw falaata doomaa laa ahad ñaareel ba mooy ma di ko wax ndaw ñeen ñëpp politique bii ñuy def wala lii ñuy def dañ cee war a jaamu yàlla dañ cee war a taw taxawaay war nañ cee far waaye waruñ ci farfarlu ndax kenn ku ne njaboot gi nga yor yàlla yow la leen dénk nga di leen sàmm kullukum ra'in ko kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati kon jamono war naa dem ba boo xam ne nii la Seexu Xadim waxoon ne xat fakk kabla nañ dagg buum yi jaam yi boobu jaam yi nag mooy dagg na la sax loo waxoon nañ ko dagg dagg na kenn ku ne yaa war a orienter sa njaboot xool la gën ci dëkk bi ñu def ko ndax dëkk bi kat bu ñu bàkkee dëkk la boo xam ne nii boo ñëwee di politique xaalis rek nga fi mën a def am fi dara man dama ne su dee loolu rek maa ngi ñaan yàlla yàlla moom mu jiitaloo dëkk bi waaye bu dee dëkk la boo xam ne buñ leen nara not ci dara. ñu bañ ko soppi ko loolu mooy dëkk ndax Seydina Ababacar daana wax ne aw xeet tànk duñ bañ yàlla du du dindi ak toroxtaange ci seen biir te yàlla nañ ci yàlla musal kon nag li leen metti moo ma metti li sëriñ bu wax léegi dimbalante la dangeen may dimbale ma dimbale leen yàlla mànkewul dara waaye nee na in tansurullah yansurukum te yàlla dimbaleem gi li yàlla ne dimbaleen ma soxlawul dara waaye dimbale ay jaamam rek la te kenn ku ne ca fa nga nekk ci ña nga yilif ci njaboot ga nga nekk man nga leen a dimbale dimbale leen ñu xam nan la ñuy liggéeyee nan la ñuy jaamu yàlla nan la ñuy jële seen baat di ko denk ëllëg ndax kat yaakaar naa bu ñu bëggee di jaamu yàlla di woor di woori li nga xam ne nii moo jëm ci mbiru nit ñi waruñ ci farfarloo waaw waruñ ci farfarloo liñ ci war a def rek mooy doxale ko ba ku ne am lañ ci am ku digle nag am na waaye nangu ñu di la jox pour que yow nga nga imposer nit ñi kuñ war a tànn man ne duma ko def man ne sama njabootu bopp gee sama njabootu bopp gee élection jot na bañ àggee dama ne ku ne koy wotal kenn ku ne wax ka muy wotal ma ne leen dem leen ngeen wotal ko ndax kat bu ma leen forcé woon ne diw ñu ne ma waaw danañ mën a waaw de waaye bu ñu demee ca mañ gàcc ka la leen neex la ñuy def bu boobaa wax nañ lu dëgg te yow yaa leen dimbali ñu wax lu dul dëgg waaw yaa leen dimbali ñu wax lu dul dëgg kon nag sëriñ bi maa ngi ñaan ah, nga gë nga ñaanal ñu rek ba ëllëg ñu bañ a tas yaakaar ndax man bu doon élection rek gañe du ma campagne ndax xam naa ne nit ñi bëgg nañ soppite danañ ko fi jëlee loolu moom lu ma leer la li tax may dugg ci nit ñi pour jéem a xam li xew ba ëllëg boo ko yoree rek nga mën a liggéey ndax ëllëg boo ko yoree di toog di nemmiku doo ko man ndax la la wër rek leneen lay wëraat leneen lay wëraat waaw jot gi nga mën a am dugg ci nit jë xam seeni soxla ëllëg boo toogee doo ko man doo ko man ci weer yu njëkk yi bokk ndax nga jàng kër ga nga nekk rek day doy liggéey kon nag jërëjëf maa ngi jéggulu ci guddal bi ak ci eh, kàddu yu yu incha allah bu fekkee am na lu ci lu ci lu ci dëng salaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum wa wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam bu tedd bu màgg boobu di suñu yóbbee suñu mag suñu sëriñ suñu xalifa ñuy waxee ci kàddu muy sëriñ Omar Ndiaye di nuyu président sëriñ boobu di ko dalal ak jàmm ñuy wax ci turu sëriñ bi mu doon kàddu yoo xam ne xëy na dina di suñu lool waaye tamit bu ñu ñaanee ci barkeem rek dina oyof suñu lool yaakaar naa kàddu yi fi mbokk yi wax dégg nga ko. yow tamit kaddu yi yi nga fi wax sëriñ bi dégg na ko waaye li si gën a am solo rek mooy kaddu gi nga xam ne mooy kaddu dëgg gi nga fi yëkkati ndax ñi ëpp ci politiciens yi bu ñuy wax dañuy wax wax yoo xam ne nii leer na leen ne duñ ko nar ëllëg te ni nga waxee mooy yaa ayyuha alladina amanu lima na maa laa tafaaluuna kabura maqatan inda allah yàlla dafa rëbb ñi nga xam ne dañuy wax te lañuy wax buñ noppee dañ ko jëfee te ci sa biir wax wax nga loo xam ne maanaam am nga yéene jëfe ko yéene googu yàlla na la ko sama borom mottali la te dëgëral la ba nga la ko ci jàmm ak salaam si barkeb Cheikhul Khadim euh, sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci barkeb borom pakk bi nga xam ne moo di yàlla woon ak boromam ba suñ borom jox ko te barab bi nekkoon barab boo xam ne barab bu doy waar la woon yàlla dogal ci liggéeyal gi muy liggéeyal yàlla nekk ci boroomam ba suñ boroom joxoo euh, mu liggéeyal fi yàlla liggéey bu toll nii euh, kon jàpp naa ne bu ñaanee kon loolu suñ balla wax sànq ne borom barab bi dafa deyaaleeg boroomam ne képp ko fi aajoom natta faj bu mu fi ñëw te muy li ñu amal fii lépp amul lenn loo xam ne dinañ ci dem ci ay télé wala ñuy bind ay leetar di ko yóbbu ci ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen déedéet ndax ñun sëriñ bi loolu toolu lislaam amu si ak yàq amu si ak defar waaye toolu lislaam boobu nag da nekk si biir ah mënuñoo toog mukk te sant ñi nga xam ne ñoom nga àndal te yàlla dogal ñu nekk ci biir kër gi di xëy si kër gi di gonte si kër gi muy sëriñ Pape Faye Pape Faye si kër gi la bokk. yoo xam naa tey rek lañ doon ñaanal baayam waaye ñun ñii ñoo doon jànkan yi léppam ci kër gi la koy def eh, ak soxna soo dafa jàmm mais moom tamit fi la dëkk waaye léppam ci kër gi la sëriñ bi nee na leen tant tam ngi lay teereel tant boobu si moom sëriñ Fallou si leen nii tamit léppam kër gi la yoo xam naa mi la koy leeralal léegi ak sëriñ Abdou Diagne ak sëriñ Assane Diouf ñi ay mbokki taalibe lañ yoo xam ne dañoo doon lépp ci kër gi te lépp la ñuy def tamit fii lañ koy sakkoo yàlla dogal ngay àndak ak ñoom yaa na buñ meloon neneen tamit boo ñëwee fii sëñ bi maanaam euh, sëñ bi day dus waaye lépp defar lu nekk fi ñoom rek maanaam fi kër gi lañ ko nàmpatalee kon loolu li ngi la koy seereel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñun nag dañoo doon ay jëmm yoo xam ne yaroo wuñ ñu maanaam di seeti mbaa di dem mbaa di toogaan yi ñun si luñ nekk dañ kaa gëm te ko te jàpp ne mën na lu nekk nag mooy alxuraan ak xasaayu soxla xat yi lu jiitu suñ gan ak àdduna suñuy waajur su la nekkoon daan dund suñ borom daan ko ci teral ban tedde nii mu tedde nii ñun ñi tamit si lañ fas yéenee nekk te fas yéenee kaa képp ku ñu ci fekk si nag ñu ànd ak moom si loolu kon nag ginnaaw ba nga doomee doomi daara ñu ngi lay leeralal loolu bu baax a baax a baax di tëj rek xëy na bokk ci kàddu sëñ bi waaye dama koy lancer message si waajuru ndongo yi fi teew yépp ndax jëmm ji si loolu xam ne jàng nasaraan wala jàng tubaab taxut doon dara ëllëg la loolu doon philosophie boo xam ne waajuru dañ kaa war a dugal seen bopp buñ jàpp ne njàng nasaraan rek moom mooy tax a am dara déedéet suñu tubaab nee na am njàng wasila la wasila mooy ab jumtukaay la la lay eggale sa xaaya ba nag moom ci mbiru yàlla la nekk kon nañ nampatalaat xale yi jàng leen leen diine teg loon ci yoonu siraatal mustaqim ëllëg si biir dinañ mën a jariñ di santaat bu baax a baax a baax a baax sa teewaay fii ci kàddu sëriñ bi ndax xëy na xam nañ ne jamono ji xat na te ñu mel nii boo ci tollee ñu bëree bari dañ lay soxla kenn ku nekk xam na ne jataay bi nga am ci yàgg na te nit nga jël si moom temps dafa seer ak wax al waxtu ka say waxtu dafa mel ni jaasi boo ko dugg rek mu dog la kon temps bi nga ci def nii te yàlla tax ak bëgg xent bi nga xentu sëriñ bi ak bëgg bi nga bëgg kër gi ak bëgg bi nga bëgg maanaam xam ne ni ngay yóotu mën nga gaa jaaree fii dana na ko sama borom defal ci barkeb Seexul Xadiim ñu ngi santaat bu baax a baax maçon bi nga xam ne nii moom moo yor liggéey bi ndax mbooloo mi ñoo ma ko jàllale ndax liggéey bi dafa doon loo xam ni moom da kaa jaayante xëy na sax nekkut taalibu murit bokk fi ñuy bokk di naanee fi ñuy naane waaye da kaa jaayante laaju si dara maanaam di ko liggéey noonu maanaam maanaam ngir jëm yàlla de loolu tamit ñu ngi leen koy seeral di ko seeral mbooloo mi yëpp di sant ñi nga xam ne nii tamit ñoom ñoo nekk ci ron keppaat bi tey jàppale sëriñ yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax baax baax baax di leen gërëm di ñaan yàlla sëriñ bi nga ñaanal mbooloo mi yëpp képp ku fi teew aajo du ñu am xëy na kaddu gi sëriñ bi na mu ko waxee woon moo gën a jub waaye maanaam wax moo demee noonu daal da ngeen comprendre wax moom dafa xaw jafe moo tax waaw léegi-léegi moom boo toogee da ngay xaw a yu bëree bëri daf lay xaw a kii ñi tàmm wax xam nañ ko waaye ngeen comprendre lu ñu leen wax isaaratun kafat sa yu na xoqool yi junj doy na borom waxel wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu